jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy siiwal ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen ci seen seen leader bi di people 221 di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa day di ñaan réew mi di Sénégal yàlla na fi suñu borom dolli jàmm euh, tey nag ma dalal koo xamante ni vraiment euh, daje bi yàggan naa ko bëgg waaye daan na daje ci yeneen xamante ni vraiment euh, yàlla na fi gëj di ko nuyu di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm mu di Cheikh Anta kenn dootu ko présenté ci réew mi mais kenn dootu ko présenté it biir Ramadan kenn dootu ko présenté it biir Farmaren maa ngi dañ lay bàyyi nga nuyoo ñi di la suivre. waaw waaw maa lay siyaare di la bëggee ah di nuyu àdduna di nuyu soppe di nuyu mag xarit nijaay maam yaay xam nga tante di bëggee ñëpp. jërëjëf ama di wax ni rek yàlla na jàmm yàgg ci réew mi ah tasaare ko ku ne am jàmm. dëgg la man ji amoon naa mbégte eh, daan bëgg a jàkkaarloo ak yow mais tey loxo yàlla dogal. waaw dëgg eh, fi may njëkkee Cheikh Anta naka la ñëwee Ramadane. waaw Cheikh Anta nag moom ni mu ñëwee Ramadane euh, dafa soob balaa Ballago Seck waaw parce que euh, def naa ak moom avant may ñëw daan morceau ci albumu Volio. Mm-hmm. xam nga donc avant loolu daan nañ defante ay single et tout ça. bi yàlla dogalee après daan soxla sabarkat ci la yàlla dogal moom si joppam ba jëmi boppam moo ma contacté moo ma woo. moom Waly ah waaw moom Waly donc si laa nekk ak moom ba lii may wax yow nii macha allah. Mhm. kon yow euh, bi kon yow fekke woo euh, daje woo woon ak Papa Thione Waly nga dajal. waa parce que bi may dem bi may dem Ramadan boobu Papa Thione mu ngi way. Mhm. parce que ñoom dañu amoon problème percussionniste si la Waly euh, ne ko am naa xarit bu mën tëgg. Mhm. donc si lañ may indi foofu au jeu Papa Thione ab diir xam nga you ba ni yàlla defee. yal na ko yàlla yërëm te yéex ñu yàlla woyofal suuf ci kawam. xam nga ba tey ji ma continuer ak Wally. bi nga ñëwee naka lañ la teeroo biir Ramadane. waaw mais comme comme comme musicien bu ñëw rek xam nga yàlla dafa def ni moom dañ nekk si métier boo xamante ni bi lu waay di def rek jëm ko maîtriser. xam nga jëm ko boo ca mënul léppit jéemal mën moitié bi. wala boo ci amee benn nga di ko defee fulla ak fayda. Mhm. xam nga donc macha allah ay famille lañu. Mhm. Eh, ñun famille lañu. Mhm. Euh, bi nga ñëwee Ramadaan daan ak Papa Thione euh, ba Papa jóge fi yàlla na ko yàlla yërëm. Mhm. nga ñëwaat àndaat ki nga xamante ni mooy doomam est-ce que yomboon na ko. waaw mais xam nga Papa Thione daf ñu jur ñun ñëpp xam nga neexul nga jekki di gis sa kilifa jekki-jekki xëy gisatoo ko xam neexul ci xool waaye ak lu mën a xew rek dangay xam ne yàlla moom lu ko soog mu def. Mhm. lu mu nam mu ci jaamam da koy def. Mhm. te du xaar sa xalaat. Mhm. non donc gunge waali rek te yàlla rek tax. Mhm. ànd ak moom te yàlla rek tax. xam nga li ñu boole suñu borom la soob puso la bu ñu nasee ñu nekk famille. yee loolu la. est-ce que tey Wally bi ngeen jógee ci Papa Thione ku ne xam na ni Papa Thione ak dayo bi amoon ñëpp xamoon nañ ni musique moom amu ci woon morom euh, tey ngeen ñëw waroon a jàkkaarloo ak Wally est-ce que commencement yomboon na li ngeen doon am ci Papa Thione ngeen koy am ci Wally est-ce que yomboon na. non mais parce que xam nga Wally nag doomu Papa Thione la li naan paaka cat la day ñaw. Mm-hmm. bon lépp mu ngi woon ci moom xëy na li waajuram bu góor wàññeekoo ci la ko suñu borom. gën a fëgg yee li nelaw ci moom ñu booleeg lu ñu yor ñu ànd loolu la rek. Mhm. après loolu naka ngeen def ba créer Faramareen. ah mais Faramareen <laughs> dëkk la askan la dafa yaatu moom yëkkati na drapeau yi ba mu doon lu lu lu lu fu kawee. Mhm. non boobu képp kuy Faramareen da nga koo war a sant ñaanal ko yàlla parce que xam nga yàlla ci moom la ko yàlla dogal. tey ngeen ji ànd ak Wally mu métti woon lool Wally daan dégg lu nekk yéen ngeen daan dégg lu nekk aussi tamit ku ne xam na ni Wally ko xam carrière am xam ne difficile na trop ci coow li ak yenn yi nga xam ne daan nañ ko ko waxal ba tey ngeen jungee ko agsi fii naka ngeen daan dundee wax yooyu noonu. waaw mais xam nga nit moom ak lu mën a xew ci loo mën a nekk buñ la ci dee wax safaan bu dee borom jom nga doo gëstu doo tontu ak lu mu metti métti li nga xamante ni bii moom mooy nekk euh, sa combat mooy que. fi lay séntu bul la fa gis li nga war a def nga def ko ak lu mën a xew. Mhm. d'accord ñu gis ni biir Ramadan wala biir Faramaren sax laa wax da nga ñam benn benn déggoo ba boo leen di tëgg maa ngi la koy won sànq. naan la mhm. Kër Masar bi dama yaakaar ne sax yow da nga aalu. des fois dafa mel da ñu tëggee aal wala ñeewantal boo leen am ci booy bi la wala lan la. waaw mais dañ ko bëgg dañ ko bëgg waali waali moom. defe naa ni ñiy dagg ticket di ko baal si <laughs> musiciens yi dañoo ne ci kaw rek waaye bu fekkoon nekkuñu ci kaw fu waal di tëgg dañuy dagg ticket parce que yàlla moo ñu boolee ñu nekk ñoo xam ne xam nga li ñu li ñu bëggante soobul nit nit defu ko dogalu ko suñu borom a ko dogal. Mhm. moo tax ñu ànd ak moom boobu ba tey you know di liggéey. wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk ci ñun rek bët bu rafet nga koy xool. Mhm. xam nga you know loolu moom mbiru suñu borom la. dëgg la mën naa la ci cité comme yow yaa fi toog am na ci loo xam ne it fekkee ko keroog bi ndaw si laa ko yàlla ko yàlla yërëm euh, kii di maman Diaga déplacé wu na ñëw mu mel ni yow dafa am benn complicité boo xam ne am nga ko ak Wally aussi. waaw Wally moom frère la li may faral di wax rek dama koy wax lu bari li ñu liyee dafa romb euh, romb lu bari quoi donc yàlla moo ma booleeg moom te wax dëgg yàlla. ma koy ñaanal yàlla sàmm ko tamit aussi parce que nit moom bu la yàlla booleek moom ngeen di liggéey boo ko dee ñaanal jàmm ci la sa jàmm di ne. dëgg donc yàlla na ko yàlla sàmm defal ko jàmm parce que sama yaay jaaga tamit nit ku baax la koo xamante ni si. man maay fan sax moom. ndeysaan waaw moom man la fan. <laughs> moo tax bu may tëgg moom laay tëggal. ndeysaan donc sama yaay la sama xarit la et puis mooy loolu quoi. ndeysaan euh, ñu gis ne nag Cheikh Ndaw si tamit li mu nekk nekk xarit Wally nekk magam euh, bëriwul luñ koy gis ci ay détails ay coow kenn ko ci dégg ñu bëri naan non day làqatu euh, c'est quoi problème en fait ba lu bari kenn du la ci dégg. waaw mais xam nga nit ku nit ku nekk li nga préféré xam nga li ñuy wax naan bu fekkee ni coow. coow baax na coow dara nekk si parce que musique moom ak coow biis ak coow ñoo ànd xam nga mais man je préfère may def li may def ci sumay instrument yi nga xam ni moom laa moom laa maîtriser je préfère ma di ko defee foofu même bu ma amee lu ma métti man samay sabar laa koy faje donc moo tax souvent booy xool su may tëgg da ngay daan est-ce kii dafa am énergie wala whatever nangam nangam parce que nit boo ko nee li ngay def. soo ci boo koy defal doo ci demee demi mesure mhm. donc loolu rek la mhm. ñu gis ni tamit vraiment yaa ngi yaa ngi yaa yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi créer leneen yaa ngi mu mel ni des damay gis nga partagé ak ñenn ci yeneen musiciens yi ci li nga xamante ni moo di sa wàllu domaine mu mel ni yow dafa mel ni tënkuñu la en fait. non mais pas que tax ma ñun nous sommes des artistes avant tout artistes lañu te. fii moom defe naa kenn yeewoowu fi Ghana mbaa Burkina <laughs> ñun ñëpp Sénégal la ñuy yeewoo donc lu ñu boole li ñu boole moo ñu boole ko you know donc nit ku nekk ci li nga nekk war nga ci mën a war nga ko mën a tas ba képp ku ci xaj rek nga xajal ko ci d'accord yàqul dara du teree du teree fa nga ne da nga koy jëmbat ba mu mhm. neex. mënuñoo mhm. wax ba nag ba dem tamit du ñu ñëw ci li nga xamante ni actualité la mu di seen i benn frère kii di Ameth ciw génnoon fan yee passé am benn sortie bu mu wax que ni kontaanuma ci sama rakk naka nga jàngatee wax jooju. waaw loolu de moom wax dëgg yàlla ñun moom dafa naa ni famille lañu te am na loo xamante ni bii ci sunu biir rek la nekk naaw te xam naa ni ñi ci war a wax dinañ ci wax parce que nag daan moom dafa nekk groupe boo xam ne dafa am ay kilifa am ay chef d'orchestre mhm. am ay njaatige te ñun ñëpp wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk boo gisee sa morom da nga koy bëgg a lekk ndax da ko bëgg. donc kon yaakaar naa ni loolu moom ñu ngi ko déggee <laughs> lan laa ko déggee mais ci kàttalu yàlla ak maaxam dana saafara wu soobee suñu borom. d' accord mais bi loolu amee yaa ngi koy wax léegi ni Ramadane famille lañu euh, comme famille lañu aussi tamit Ameth Thiou koo xam xamoon digganteem ak papa Thione est ce que loolu noonu bi mu amee warul woon a woo rakkam wala mu dem ci këram donte amu fa sens interdit comme yow ni nga koy defee dem waxtaan moom ni ko booy lii nga def kat ak lii moo a xaru cew moo gën mu koy teg ci penc ba réseaux sociaux yi ci jot. ko sàmm fii quoi man ci muy Ameth muy Waly you donc parce que kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla lié naa ak yow loo xamante ne bii sañ naa laa fekk fi nga nekk. Mhm. ne nangam ak nangam ak nangam. donc di ñoo ngi ci loolu yàlla na ko yàlla saafara. amiin ñu àndaat nekk ci jàmm. you parce que loolu moo ñu war te euh, bu fekkente ni bii euh, muy Ameth muy Waly muy Cheikh Anta muy Mbaye si muy kum ci mun a doon dañoo bëggante. loolu yàlla dogal. li wax naa la ko ci biir wax nee naa la Ramadaan dafa am benn puso boo xam ne dañ ci def buum suñu borom nag la soob mu nas ko. Mhm. loolu suñu borom nas noonu yàlla bu mu xotti ko. ci baat Cheikh parce que euh, ak lu mu mun a doon lu mu mun a doon réeroo xajul ci suñu biir te duñ ko ci xajal ci kàttanu yàlla. danañ ko waxtaanee bu soobee suñu borom. d' accord ñu gis ni bi Ahmed génnee wax jooju noonu. Euh, bu bi mu joué Kër Massar am ay termes yoo xam ne daf ko yëkkati yow mi nga xam ne yaa koy tëggal terme yooyu noonu ñu bari ci Sénégal lay jàpp ni Ameth Thiou la doon waxal donte ko de mën nga cee jëlee bon exemple naka nga jàngatee wax jooju waale wax foofu. xam nga xel moom dafa gàtt. nit ku xel dafa gàtt quoi xel moo sew. you nit mën naa dégg dara fekk na du chance boobu nit déggee ko nii nit déggee ko nii nit déggee parce que ku nekk ni ngay déggee man moment boobu man yëguma ko parce que maay tëgg. Mm-hmm. waaw. noonu la demee. <laughs> d'accord d'accord euh, naka nga jàngatee aussi tamit sortie bi nga def na ko démb Sénégalais yu bari aussi tamit euh, ñii naqarlu ko ñi tamit xaw ko ñeewantal parce que Ameth warul woon a demee noonu démb sortie bi mu def naka nga ko jàngatee. dara du fi dem. bu soobee suñu famille lan dinañ ko waxtaanee ci suñu biir bu soobee suñu borom. Mhm. mais sortem bi démb tamit mu ngi wax ni sama yaay taxaw na woo ma ni ma pourquoi waale ak li nga daj ci papa Thione muy ñëw Kër Massar di la gaar waale. déggoo ma de dama ni famille lan te dinañ ko waxtaanee bu soobee suñu borom. dañ mhm. ko waxtaanee ci suñu biir parce que famille lan. Mhm. mais ku dégg dégg nag ni mu waxee xam naa doo ci nangoo sori mais mel ni dafa waxee xol dafa mel ni ku am jàppal booy que xam nga buñ ñu fàtte ah, nit nit rek lay doon nit nit kese la mën a doon you know like uh, bu fekkee ni uh, nit day nekk ak jabaram jekki-jekki mere mhm. wala jabaram mere ko te pourtant dañ koy waxtaane you know donc foofu laa ko teg you know dinañ ko waxtaane ci sunu biir bi mala wax nii mooy que ni uh, dinañ ko waxtaane ci sunu biir yow da nga maa bett déjà <laughs> te sama xarit nga dama ñëw ci si bi rek nga ñëw taalal taalal ma micro yi ginnaaw <laughs> parce que boobu ba léegi bugguma parce que man je si pas du ma nit buy faral di wax lu bëree bëri xam nga ginnaaw mais yàlla dina def sutura ci kattanam ak mbaaxam lépp dina yes mais mais mais moom nee na day dem fale lay dem non moom nee na bàyyi na ram waaw loolu loolu yow yaa yaa koy wax nii rek famille lan dañ ko waxtaanee bu soobee yàlla. d'accord bi amee nii ban taxawaay ngeen ci taxaw est-ce que jot ngeen a wax ak ki nga xamante ni moo di Waly wala jot ngeen ñëw Ameth Thiou a waxtaan ak moom pour ñu ut ci nga xamante ni mooy. mooy li ma la wax rek. nee naa la ñun Sénégal lañ dëkk quoi ni nga ko mënee jot rek nañ ko mënee jot. Mm-hmm. you know mais dégg nañ ko démb surprise nañu parce que dafa jékki-jékki rek taw you mm-hmm. mais ci kàttanu yàlla ak mbaaxam dinañ ko taataan moo nekkee boo nekkee ci néeg muy taw di senn xam fa nga wut siwo wala dara dinañ ko taataan ba mu tal ba mu ba mu teey ñu waxtaanee ko ci suñu biir bu soobee suñu borom. Mhm. mais jàppoo ni foofu tamit fay dafa am ku mel ni Ameth Thiou ak taxawaay bi nga xamante amoon na ko ak Papa Thiou déggoo ma de. ak ah, taxawaay boobu tamit amaat ko biir biir faramaare. ma ni mënul am fenn danañ ko taataan teg ko ci kër gi dugg ci néeg bi tëj néeg bi. ñun ci suñu biir nu waxtaanee ko bu soobee suñu borom. kon mën nañu xaar bento am na dina ñëwaat biir Ramadan. yàlla na ko suñu borom def te loolu lañ ci jublu ci kattanu yàlla da dina am bu soobee yàlla. dina am ñun mënuñu bàyyante sequñu ko ku mën a dégg ma. dégg naa la baax. ñun sañuñu waruñu parce que sequñu bàyyante en fait li ñu liyee kenn xamul. tey jii ku ci nekk yaa ngi woon ci li nga nekk avant ngay gis Wally wala ngay gis Papa Thione yàlla na ko yàlla yërëm ku ne yaa ngi woon ci say vibe si bopp di dem yàlla mi mu soob ba mu boole ñu ñun ñëpp ci benn buum bi boole moom moomu képp yàlla suñu borom kepp moo mën a dakkal mais du doomu aadama jaam nag sañ na sabablu you know sañ na sabablu bu soobee suñ borom dañ ko waxtaanee ci suñu biir mais déggante nga ci ak Ameth Thiou bi mbir mi xewee ba léegi. bu baax nañ ko nañ ko waxtaanee allah. nañ ko waxtaanee. Uh-huh. Euh, am na solo xam naa moom mënuñ ci sori parce que vraiment day nit ku baax nekk nit ku euh, disponible aussi tamit ci suñu côté. Euh, tey ngeen jëm ay ay événement mu di Bercy Kër Massar jóge fa Bercy Pikine suba Bercy Parcelles war a demaat international tournée yooyu noonu. ak déggoo boobu noonu ngeen xam ne am ngeen ko bay mën a accompagner waale ci événement yooyu noonu est ce waali waali se waali xam nga yàlla dafa doy waar suñu borom nit ku nekk ni nga mel rek noonu la lay booy seet booy seet noonu la say mbir di demee. ñu nekk ci benn groupe nekk nañ romb na dizaine de personnes. comprendre nga donc ñun ñëpp muy suñu kilifa. parce que nag kilifa du tuuti. Mhm. ginnaaw yàlla ak yonent bi moom la yàlla jiital. ci ginnaaw yàlla ak yonent bi moom mooy ki nga xamante ni bii moo ne ci kanam ñi di ko accompagner kon donc moom dañ ko war a ñaanal jàmm bu ko defee ñun suñu jàmm ci lay xaj. Mhm. comprendre nga donc concert yi dates yi internationales yi yooyu yëpp c'est bien beau parce que pour ñu delloo njukkal ñun faaw fu nu dem toj ko ndax yàlla. moom la soob mu def waali ni mu ko def you know kon donc ñun ñi nga xaman ñi nga xamante ne bii ñoo koy béggee bu fekkee Kër Massar la bu fekkee tey jii comme Pikine bu fekkee whatever parcelle. Mhm. bu fekkee euh, France lañ bi ñu jëm bu yàgg dara fu mu ci mun a doon rek mbooloo ma fa ne même bu fekkonte ne gars dañuy def nii nelaw trente minutes pour yéeg sur scène. bu ñu yéegee dina mel ni nelaw na une semaine parce que loolu mooy delloo njukkal gi. d'accord. Euh, tey lan lañ mën a xaar ci Cheikh Anta ci say programme ak ci say projet bientôt. waaw man sama projet moom maa ngi sama album. waaw man maa ngi si sama album incha allah dafay génn normalement 9 juin. 9 juin incha allah rabbi ci loolu laa nekk Sabar Melo. ama parce que tamit euh, artiste la percussionniste la te il faut que ma wane li nga xamante ne moom la saa borom def ci man. Mm-hmm. donc bëgg samay rakk yi topp sama ginnaaw bu ñëwee jaar ci yoon woowa. Mm-hmm. <laughs> ah noonu la demee. Ah, mais kontaan nañ. Ah, noonu la demee di ñaan yàlla rek di ñaan yàlla jàmm rek di mm-hmm. ñaanal jàmm di ñaan yàlla seytaane ngir yàlla banu. <laughs> voilà quoi you know. yeah. seytaane you dafa xam nga dafa dafa sew. te te te te fu mu xaju léeg lay dugg. xam mhm. mais am naa yaqin am naa pas-pas am naa gëm-gëm te jàpp naa ni lépp dina saafaraw ci barke Cheikh Ibrahima. incha